Afrika melekami Yaga yaga yaga dinadani Chigeuke nduko jamnani Nenala samaganya Anazuture bifinyo mamba yibon Diko yura ferjinyo ranyewon Tefameli dunyo bayi sunyo yon Baga astano lunyo momuton Dege hamsa boppaden jërëjëf euh, Samba si auditeur auditrice euh, Safina FM salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu bu baax euh, di leen siyaar di leen dalal jàmm ci seen émission ëttu ndaw ñi niki àllarba bu jot bu waxtu bi jotee rek ñëw agsi si nag ñu ci waxtaanee lépp li nga xamante ni nag soxal na ndaw ñi seen nekkin seen jëfin ak seen i doxalin. laata may jox euh, sama naataango yi ma bokk ak studio bi kàddu gi nag euh, damay nuyu suñu imaam imaam Thierno Amidou yara baa nuyu suñu directrice euh, madame Ñumoba Gange di nuyu képp kuy soppey Safina FM nag di ko teg ci loxo Pape Alaaji Malick Gueye waaye képp kuy soppey émission bi nag Pape Sall ba ca Parcelles ni ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi woote mënuñoo lim ñëpp nag waaye ñëpp kuy safoo émission bi ñu ngi lay nuyu bu baax baax a baax damay rek daal di sama càmmoñ daal di nuyu Makoro jaña Makoro Auzu billahi minash shaytani bismillahir rahmanir rahim mbok auditeur ñi ngi leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam di leen ziaré yeen ñep di jël nuyu bi di ko defaat comme d'habitude di nuyu suñu PDG mu jël ko def ko jox ko suñu directrice mu tas ko ci kër gi mbolem animateur bu jigen animatrice technicien technicienne journaliste bu góor ak bu jigen ñep nekk ci kër gi ñi ngi lay nuyu di la ziaré di wax ni darabu ëtt ndaw ñi dellu seeti na comme ni ñu koy waxee darabu bu Fall la couleur bu nekk ngi ci thème bu nekk ngi ci tribord ba boor la rek waaw tey nag ñu dellu seeti foo xamante ni nag euh, fu nooy lay doon li xew ci jamono ji rek ñu ànd di tourner rek comme li may wax ëttu ndaw ñi chaîne la wàll bu ñëw rek am na link bu mu am ak euh, wàll yu yeesu ni leen wax ne yaatal geek leeral gi léegi léegi la rek ñu fas yéeneeti si li mbir mi daal. Mm-hmm. léegi jërëjëf euh, Makoro Diagne ma féegoog ci beneen wet gi nag moom moo Fatou Ndao nuyu nuyu suñu beneen nag maam Makura doon lu nit mën a jariñu mhm. jërëjëf tey nag ëttu euh, ndaw ñi dañ fee dalal suñu mag nag di nga xamante ni fii lay liggéeyee ci rajo bi di maam Cheikh Ahmed Tidiane Diop borom musique orientale maam Cheikh nuyu naa la. maa ngi lay fay sëñ Ablaye di la bàyyi nga nuyoog mbokk auditeurs yi naouzu billahi min charri alkufaari wa min charri nasara wa min charri salatin wa min wazirin wa jinnin summa zi hiqadin fammin wa aynin wa xiinin wa shayatinin wa zalimin wa munafiqin wa zi xasadin wa man tafassaqa ya rahmanu najjini min annasara wa man xafaw tariqahum ya allahu ya xayya man qaala ad'uni إني دعوتك ذا خوف فقص بيدي يجعل الحال بين الكاف والنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي عبد الله مانجلي نيو دي الزيارة وباخ باخ دي نيو نيغا خامل نيو مني بوك بلاتو اتنداوني واي نيو نيو زيارة سنو أسرين سنو خريب سنو صبي al imam Thierno Hamidou Robane mhm. euh, di ziar itam suñu directrice madame Gange mhm. waaye di ziar sama sang Seyd Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy al Mourchid mhm. tabarakallah jërëjëf euh, maam Cheikh Ahmed Tidiane Diop jërëjëf euh, Fatou Ndaw may jërëjëf Makura kon nag tey émission bi nag li ñuy waxtaanee rek mooy ndaw ñi ak diine gi nag ndaxam ndaw ñi ñi ngi dund bu baax ni nga xamante ni moo di diine gi ndaxam ña ngay julli ndaxam ña ngay xam nañ seen i xam nañ seen i seen i seen i wareef nga xamante ni koo def jëme ko ci diine gi ñu nekk nag moom la ñuy waxtaanee ak jamono ji nga xamante ni li ñuy tuddee see bi dafa bëri lool lool lool ci dëkk bi loolu tax sax ñu dalal fi ki nga xamante ni moo di Mame Cheikh Ahmed Tidiane Diop kon numéro bi 88 la 628 10 95 88 628 10 95 si ngeen di mën a jaar rek ngir agsi si li nga xamante ni moo di ëttu ndaw ñi ñu ci waxtaanee ma waxaat ko rek mooy religion ak ñi nga xamante ni moo di ndaw ñi bismillah religion ndaw ñi ak religion yaakaar nga ni ndaw ñi ñu ngi dund diine gi. bu baax sax bu baax bu hmm. baax bu baax. parce que Sénégal. Hmm. boo nee côté diine moom. Hmm. dañ naan macha allah parce que bëri na ay dëkku lislaam yoo xam te ni boo ko fa demee. ah dunduñu ko de wala la ñuy def bu ñu la nee ay musulman lañ. Euh, di nga jeexi jaaxal. moo tax dama naan Sénégal daal fi nekk nii man man man personnellement dama naan ñu ngi dund diine ji. ndax am na yoo xamante ni ñu koo def ndagam naka mbon gaa ngi fekk yu baax yaa ngi fekk yeneen ak yeneen yaa ngi fi moom mhm. ñun ñu ngi def suñu ñun ñu ngi def suñu waal waar mooy la di diine ji santaane ñu ngi koy def mhm. comme li may faral di wax rek naan leen diine gi moom mettiwul nit mhm. ñee koy mettil boo ko jëlee à la mu lese ba boo ko bëggee mettil diisal ko sa kawit day diis waaw foofu laa yem pour l'instant bàyyi gaa yi ñoo ma xool fu ñu fu ñuy fëlee tey tey ndànk laay def gars yi quoi la Barcelone dañuy teg bal ci suuf Fatou. waaw. thème bi lay inspiré. comme mhm. diine moom. Mhm. lu ñu war a wax la. Mhm. parce que Sénégal mun nañu dinañ wax ni que ni diine am na fi bu baax ndaw yi ñu ngi koy def mais dafa rax. te boobu nag xam naa dinañ si dikkaat. maam Cheikh. waaw jërëjëf Abdallah. comme ni nga ko waxee ci wàllu ndaw ñi ak religion. ah Makura nee dëgg la ñu ngi dund diine bu baax. Mhm. waaye lam ca teg mooy euh, diine ji mettiwul. Mhm. loolu waxu yonent bi alayhi salaatu wa salaam la. Mhm. yonent bi nee diine diisul lu dul ki ko diisal. ndax boo toppee norme yi lislaam wax. li nga xam ne diine diisul. waaye nag ki nga xam ne tegul tànkam ci diine. foog ah. diine diis ci kawam. parce que am na koo xam ne du teg tànkam ci diine boo ko fekkee mu wàcc yoon bi. boo ne ah bo tegoon sa tànk fi moy gën danaan la bu kenn fatt mhm. en tant que musulman je naan la lakum diinu ku Je suis diin mhm. te bi ñuy wax yoy yéeféer taxone deug la léegi mom ba muy wax da fay dugal bopam ci cadre bobu mhm. est-ce que kooku subaa dinañ ko mën euh, qualifier ci kuy dund religion laaj maa ngi 88 628 10 95 88 628 10 95 moko dégg nga li li li xam nga parfois. dañuy wax naan euh, ndaw ñi dañoo dañuy jël diine ji ah di ko foowee. Mhm. ah parfois nga dem ci yenn béréb bi bu de nuit ñu jël ko di ko woyee di ko def mais xam nga parfois dañu war a xam ne jamono mooy dox. Mhm. musique amoon na bu njëkk. Mhm. musique dafay dox ni ah, jamono di doxee. kër yi bees yi am ay oto yu bees yi am technologie ba ci portable yi ku ñëwoon jaay jamono yu dina am. ken du ko gëm mais dafa ñëw ba jamono ji dafa am nonu la démé tay ba diiné ji nit ñi dañuy dem ba diko jël diko jéma moderniser diko ko diiné diine ah, ah, NTS maanaam religion autrement parce que ci nan ci nan ma expliquer mhm. parfois da ngay gis bu njëkk xoola jàkkay sax ni ngi koy défé parfois mhm. nga dem fekk jàkkay ñu climatiser ko kérok amna na benn mo ma jullee ji waa imam bi tablette la yoron ci la doon khutba xam nga kon moo lay wan ne tey affaire yi tey mi ngi évoluer mi ngi dem mhm. mais tey parfois da ngay gis tey euh, euh, ndaw boo xam te ni tey soirée soirée mi ngi fa bois de nuit mi ngi fa fu fu fu mbir gën a xumbee te dagan rek mi ngi fa parfois nga gis gars euh, ñu baal ma genre maam seex yi parfois ñu tëb rek ñëw ne te xu boo nee xumbute dagan ñu ne la déedéet xumbute safaan ba commencé bëgg indi affaire yoo teg ne noo du loolu jamono moo demee noonu. Mhm. boo jëlee dara teg da ngay jël diine teg ca wet ga boo paree lii dugg ca diine keroog ba ñuy waajal koor gi ñu ngi fi doon wax waxum tëj saison. Mhm. ma ni leen kay waajal kay finaalu ne leen damay tëj saison ngir jaamu yàlla kon kooku am xalaat na yàlla ma ngay waajal yàlla. Mhm. Hmm? mu ute wala mu tane ka nga xamante ni xalaatul yàlla lijjantiwul yàlla. xam nga kon kooku dèjà mi ngi ci marge societé bi. waaye ki nga xam te nee na damay finaalu ngir koor gee ngi ñëw ma dugg ci koor gi mhm. kon kooku xalaat na yàlla mooy lool laa fi waxoon mhm. ba tey ci dynamique boobu laa nekk de mhm. fa dama leen di soutenir ba mu jeex waaw man ci seen yi laa far fa laa bokk ci li ñuy def loolu laa àndal waaw waaw mooy li ma wax rek falaa falaa nekk falaa far nga jumaa sax bu nekkoon ci biir boîte de nuit pour man nga julli ci biir boîte de nuit bi sax ci jumaa ji am boîte de nuit nga julli ci biir boîte de nuit benn la rek ak juma ji ne ci bop koñ wi wala bi nek ci suuf pour man ben la rek mbalax bi mbalax bi ñi woyee naan mbëggee li li ak mbalax bi ñi jël di way yonenti bi ben la parce que wéen ki yo baat bi way yonenti bi fee moy way yonenti bi fi soit bëré bi ñoy xawu a yutee da lay xamné mom la duma ko duma ko rafetlu colin bi ak feccin bi ben lay ben du ben parce que dañ koy xawa ñaawlu parce que gis nañ fi kérok dugg ci boîte di way di way yonenti bi so sol yéré gatt dafa xaw a ñaaw quoi ci benn ins ci benn côté waaye aussi te da da ngay da ngay xaw a dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy nangu benn côté mais aussi benn côté du ñu nangu parce que diine gi ni ñu wax de àdduna mooy dox donc àdduna bu dee dox dañuy nangu ànd ak moom di dox ni ñuy mm-hmm. dundee jamono ji mm-hmm. mais aussi du ñu nangu nag parfois nga bëgg ànd ak moom di dox ñeneen ñi bëgg la laa ko bëgg la delloowaat ay vingt-et-unième siècle ah day xaw a doy waar nag Fatou est-ce que ànd nga ak li ma ko wax sama de dama koy waxal li yonent bi salallaahu alayhi wa sallam waxoon rek nee na alaxira ñeent bokk na si ñeent yi lay njëkk a laaj mm-hmm. sa dundin bi ci topp mooy sa ndaw noo ko daan dundee mm-hmm. bi ci topp mooy sa alal noo ko amee noo ko dépensé mm-hmm. bi ci mujj mooy sa xam-xam tamit si loo ko daan def mm-hmm. léegi nag pour te dire ndaw dafa nekk période boo xamante ni dafa am importance bu nga xamante ni yàlla ne dénk ma sa ndaw ma sàmmal la sa ëllëg léegi nag boo jëlee loo yow ngay sàggan naan da ngay topp ay musique ay kii dafa wax sànq benn affaire bu ma choqué nee na baat bay way mbalax yi mooy dem mooy way yàlla si dem si diina ji yaa wax lii de. waaye lañ koy woyee dañ siy def ay musique ay instruments yoo xamante ni mosu cee bokk yàlla mosu koo wax dañ koo araamal. mooy li may wax ne instrument te yàlla nee na baatu jigéen warul jëm kaw mu nekk ci diine beeg ci mbalax bi. Mhm. te léegi jigéen ñee dàq way ñoo ci ëpp sax ci àdduna bi. Mhm. te xale yi léegi ku jóg ne da ngay way te baaxul ndax influence Sénégal lan moo ñu yàq.

doxu àdduna moo waral imaam sax léegi buy xutba tablette lay yor. waaye est-ce que tax na àtte yi lislaam tëraloon changé. jamono day dox ci tëralin. Mhm. mais lislaam est-ce que dañ naan jamono dox na la xaraamoon tey dafay dagal. imaam bay xutba tablette ba doonte tablette tablet bu bees la. teewul la alxuraan waxoon alxuraan ja amul bu bees amul bu màgget alxuraanu démb ja mooy bu tey. Mhm. kon bu li bu àdduna dee dox itam. tëralinu àdduna di soppeeku itam taxul ni lislaam tëralee soppeeku xam nga ñiy tëj seen saison ak dem géej ak du ñu sol yére ku leen warul gis di leen gis ak yu mel noonu yëpp koor ñëw ñu ne dañuy tëj saison am na ci am na ci yoo xam ne cest à kuy dund diine du dund façon boobu mm-hmm. waaw bu fekkee dañuy wax kiy dundul diine du dund loolu mm-hmm. parce que tax mm-hmm. dañ naan kon ñun dañoo tolloon ci benn jamono léegi yàllaa ngi ñuy soog a soxla déedéet yàlla laataa ngay judd la la soxla. Mhm. parce que lu waral yooyu yëpp seen éducation moo rate mhm. éducation bu raté kenn mënatul am yaakaar ci yow te nag bari na koo gis ñu ne yar nañ ko fekkee amul éducation parce que nit kenn du bàyyi ba mu judd ñu soo ko yar ñun nit ñi xamuñu loolu. xale kenn du bàyyi bu mu judd nga di ko soog nga di ko soog a yar loolooy tax nag boo bàyyi bu mu judd nga soog koo yar fekk yow yaruñ loon avant ngay judd ci kàmb ngay dugg mhm. kon nag damay sellal damay sellal ndax yegsi nañ ci jamonoy koor sekki sellal kenn du lu ñuy wax ci làmmiñ mhm. mës naa dégg benn seetaan benn émission ci benn télé ci télévision au Sénégal ma dégg benn xale bu jigéen mu wax mu ne man de du ma tricher ci koor gi laa doon julli comme que koor gi jeex na léegi jeex na daal. voilà kon ki nga xam ne moo nekkoon ci saison beeg yu mel noonu. Mhm. kon dafa dañu bëgg wax ne kon diine ku weeru koor la diine àjjuma la ñun Sénégal loolu mooy suñu problème. waaw seetlu nañ ko ci ci ci ndaw ñi comme ni koy wax loolu la ñu tey bu àjjuma jotee ma kuréel dama koy gis mu sol yére wolof. waaw àjjuma bi paas bi may def xadara dajee na ak moom. <laughs> ma ne ma kuréel àjjuma la sol yëre. <laughs> man na sama yoon man bu àjjuma jotee ma sol ma ma sol sama sol sama budi takk sama jiyeen. <laughs> sol samay dàll ba. parce que dama gëmul ne diine ci yére la wala ci bés. kon nag yeneen ti boobu ñuy wax ñu koy wëy ci yeneen bërëb yi sama turandoo maam Maktoum radiyallaahu dafa wax ne yeneen ti boo koy wëy da nga koy ci xaalam ci façon bañ ko wëy ci sa façon bi nga opté. ndax kii woy yonent bi boole kook mbalax jigéen ña koy jigéen ñi di fecc te kenn lañ lañ cee sol yeggul ci sa wóom ngay woy yonent bi bay jooy jooy lu ngir bëgg ñu ne yaa sopp yonent bi mais jamono jamono moo demee nag mais la bu jamono demee noonu itam la demee woon jamono démb moom la yàlla accepté oustaz ma yokkal la ci léegi jigéen ñee way góor ñi di ko fecc taxawal du ngeen ma waar taxawal jamono yi 1700 ak le 1700 ba muy la la xew 1800 ak la xew mil 1800 1900 ak la xew 1900 2000 ak li xew 2000 barki dem dama doon déglu benn thème ci rajo bi benn benn benn waaye am ja mook soxnaam ba pare am sëriñam sëriñ bi yor ñaari jabar soxna si am lu mu bëgg jabar ji bu ñu tëddee guddi ja mu waa ji di ko ko defal mu dem ci sëriñ bi laaj ko sëriñ bi ne ko doo ko xaraam bu ko def mais wa waa ji ko ko doon laaj ne ko sa sa sa sa sëriñ mi ngeeg ñaari jabaram xamoo lu téye ñaari jabaram mais yow sa jabar benn jabar nga am bu demee nga wét ah li mu bëgg defal ko ko mën ko wax na dëgg foofu dama ciy ànd ak moom. lan la bëgg. non dafa am loo xam te ni ci façon façon ñu baal ma ji ci façon mi ñuy seeyee ci jamono ji ci ci la bokk. Ah. waaw léegi nag moom ja xuloo na ceeg jabar jabar ji dem na léegi moom dem na ci sëriñ bi sëriñ bi ne dafa dafa araam ba pare sëriñ bi mi ngi ak ñaari jabaram mais léegi pourquoi léegi moom sëriñ bi bàyyi bàyyiloo ko jabar ji ba pare des ak ñaari jabaram ba pare di ko tere di mu def li li li li li jabar ji so li jabar ji soxla foofu. ma kura nañuy bàyyi problème yu sey yi ñuy indi ci média yi loolu mooy wax ji ba ñu demee ba tudd néegu sëy la problème ñu war koo réglé ci biir néeg néegu sëy waaye dem ci média naan sama jëkkër daf ma kii nii sama jabar daf ma kii la koo gis moo koy wax sëyul parce que sëy boo gis am nañu ko takk ay kilifa ko dox ba mu sotti bi nga bëggee jaral na la lu ne kon bu problème amee am na ci kilifa yu la jege da nga rii pour seeti leen wala lan la sëy yu bari léegi mi ngi tas média lu ci yoonam ci ci ci ci ci sa sa diggante man. am problème sama so ak sama soxna dinaa ko ñu exposé ci rajo bi. parce que média bee takk sëy bi. non gis nañ benn maam Cheikh toog ci rajo bi di wax ñëpp koy déglu di ko woo mu ne ah ma maam Cheikh mii de siiw na star la maam Cheikh pare génn rajo bi nga topp ko langal ko ko ah mais bu la maam Cheikh takkee ngeen dem ñaari weer ñetti weer après lu siiw après rek fu ñu jëmaat ci média bi lañ jëmaat ci foofu waaw Abdoulaye nga baal ñu nag parce que <laughs> waaw <laughs> eh, mooy am solo 88 628 10 95 88 628 10 95 jërëjëf euh, Samba si ginnaaw noonu si ñu agsi si pàcc beneen pàcc émission ëttu ndaw ñi ñuy waxtaanee li nga xamante ne nag moo di ndaw ñi ak diine gi naka la ndaw ñi di dundee seen diine ak jamono ji nga xamante ne nag lii di see bi ñoom Makoro Dia ñi ngi ci yëngu bu baax a baax a baax a baax ba xamante ni nag tey moo tax <laughs> ñu ci waxtaanee nag numéro bi di 88 628 10 95 88 628 10 95 si ngeen di jaar ngir ak si seen émission ëttu ndaw ji Makoro laata ñuy dem ñuy dem du samba di dugal nodd bi dégg li fi maam Cheikh wax dégg li ngeen li ñu fi jot wax yëpp mais sànq am na lu mu wax mu ne mu ne mu ne éducation bi fekkee dafay xaw a des mais est-ce tamit euh, ndaw ñi yaakaar nga ni yar nañ leen ci diine est-ce que xale bu ndaw bu am sept ans ñu ngi lay commencé ngay jàpp di julli wala nga ñu lay jàngal woor et tout est loolu jamono ji sentir nga ni am na. xam nga par parfois bu njëkk dama keroog émission passée maa ngi fi doon wax naan bu njëkk da nga laa gis sa doomu dëkkandoo def lu du yoon nga dóor ko du mujj fenn mais tey ñeme woo dóor doomu dëkkandoo cela veut dire que donc éducation bi dee na éducation amatul. yaratuñu suñu dool doole ñu naan ba njabootu kanaara xewee la la lépp yàqu ak yenn termes yu bees yi yaa ko teree neex yaay bañ ak yee yooyee mais aussi faat faatu mbaay mi dafa am lu mu wax bi mu naan ay baatu jigéen warul jóg a kii gis nga ba ngeen fi wootee parité xam ngeen yow ne gën a xam ne parité du yoon mais ngeen ngeen woote fi parité sala boobu arrangé na leen waxoo leen mais tey jamono ji ñëw ngeen ba xam ne jamono ji mi ngi leen di bëgg ëpp doole arrangé wu leen ngeen bëgg daw bëgg a rasu non parce que yéen fi wax baatu jigéen. ba taxawal nag diine ji. diine ji ay waxu waxi parité dafa mu tëj jigéen ji que yéen a yéen a fi wax wax ne baatu jigéen waru jug mais ba jigéen demee bay takku góor kay bu ko neexee mu jug am na jigéen yu takku góor. jigéen yu takku góor am na parce que ba ba ëpp ëpp xaalis ba ëpp xaalis jëkkëram ah ba takk jotee mu moo yëkkati xaalis jox jox jox waa ji ne ko kaay takk ma kon kay ko ko kay bu wax amee kan moo war a wax ah ba pare bu ñu waxee ngeen ni ay ñaari loxoy takk sër moom mooy tax takk tubéy loolu dafay dikkaat ci li oustaz wax buñ leen jàngalee religion bi lu mu wax dëgg dëgg dëgg même si bu la joxee xaalis pour nga takk ko am na loo xamante ni baat góor moo ko moom même si boo buñ la joxee xaalis ne la takk ma baat bi yàq moom mhm. nañu doxal li wax buñ ko doxalee rek jàmm dox est foofu religion dana fa amati xam nga dafa am loo xam ne ki nga xam ne loolu la ma koro di wax léegi ne góor ñi jigéen ñaa ngi takk góor ñi ndax am am bi ci ñoom la nekk xëy na loolu wax wax bu jamono indi la te léeg-léeg nag jamono dina indi baat boo ko toppee au fond di nga xam boo xamee cosaanal baat parce que baat bu ne dafa am cosaan cosaanu baat bu nekk nag war na xam lan war nañu xam lan la mais ki yàlla sédde wërsëg am na ko xam ne yàlla séddewu ko wërsëg mhm. yonent bi nga gëm moom laa gëm moom la Ablaye gëm moom la soxna si gëm mhm. mais yonent bi alayhi salaatu wasalaam soxnaam di Khadija du yonent bi moo doon liggéeyal Khadija mhm. du Khadija moo nekkoon milliardaire mhm. kan moo mujj doon boroom këram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que intérêt ko ko ci dugal mais léegi intérêt mais loolu xam nga parfois boo waxee waxu jamono jamono yonent ba boo waxee dañ naan jamono yonent ba yooyu dafa ya fa xewoon dafa xeewi non si maam Cheikh jamono yonent ba yi amoon amatul maam Cheikh gis nga amatul ci li nga amoon jamono yonent bi tam xew léegi xam ngeen ndaw ñi loolu ngeen loolu ngeen jamono de maam Cheikh xam jamono jooju aw ah, benn li kay nit ñi doon dundoo yonent kese yàllay kese amatul léegi parce que fii ku fi topp nit wala ku fi topp jigéen intérêt tax ah man de boo ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ku fi topp jigéen am na lu tax nga topp ko toppoo ko kese kese kese kese pour topp ko nii nii te te yàlla tax parce que cela dama lay juste wax la de jamono yonent ba ñoom yonent ba ah, sallallahu alayhi wa sallam doon dund ak saxaaba ak yooyu yooyu lañ doon dund ak la ñu gëmoon ñun gëmatuñu yooyu wala sax yu ci bëri dafa dafa dafa xaw a wàññeeku ma laaj ñëwal est-ce que fekkee nañ jamono yonent bi moo tax it mënuñoo gëm yooyu noonu waaw wala déet lan lan moo tax ñu xam ne noonu la daan dundee ba histoire ak topp histoire ak nettali nettali bi. ni nit ki demee ba topp histoire ba ba xam ne fii la jaar pour pourquoi pas mu teg fa tànkam. mais xam nga parfois da ngay gis parfois ku toog rek jël par exemple de la émission diine ak émission mbalax yi. kan moo ci kan la ci ban di gën a déglu jëlal 10 heures jàpp midi ci rajo yi. fu mbalax gën a taxar naa si moom sa sa genre gi yooyu lañuy ñuy déglu. man man ay kabo ak zug yooyu laay déglu. waaw boo waxee affaire diine man damay animé man animateur laa. man animateur laa. Hmm. demal su may xam naa ne moom bi nga ñuy safina ba léegi mosoo maa déglu loolu xam naa ko 2014 ba léegi maa ngi maa ngi animé fii dèjà yaa. dëgg la de <laughs> mosoo maa déglu xamul sax sama sama sama animation. xamu ko kay xamu ko. Uh-huh. te man man alhamdulilah. tey hmm. ndaw ñi ñuy wax tey su ma bañ na man une heure de temps lay animé ubbi une heure de temps ligne bi mais macha allah da ngay gis appel yi. Hmm. te parfois nga gis ci émission mbalax yoo xam ne du ñu am appel yooyu. wallahi dëgg la. pour wax la ne kenn ku ci nekk ak li yitteel. ak yar gi nekk ak nekk ci yow. Mm-hmm. yàlla dafa dafa dafa bind mm-hmm. yow nag yow nag yaay choisir. Mm-hmm. mais Makura Makura li maam Cheikh wax euh, li loolu loolu ma wax am na. parce que yéen yéen yéen yéen ndaw ñi yéen yi nga xamante ni yéen a appewoo yéen li ngeen wax ci diine gi li nga wax sànq diine gi méttiwul dëgg la sax yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko su fekkee yow métti mais yéen métti bi ngeen ko tegee dafa dafa légère bu mu ëpp waxtu julli juróom yi balaa ngeen koo matal yàllaa xam. en ah, xew en gros en gros moo xew. en gros da dajale dajale dajale ba 23h. mooy en gros ñëw këpp këppal mooy en bi ma la. Ah, question sa sa toog parfois baal ma xam nga débat débat nañu ñaan suñu débat bi dañu bëgg mu am xiima maanaam mu am valeur pour ñu ñuy déglu mm-hmm. parce que wax bu dofee itam ay nopp yi koy déglu ay nopp garmi lay doon mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. julli en mais Makoro bi nga nga. Mhm. est-ce que est-ce que. non dit sànq. tey tey dékkiwuma dana bëgg leer rek añ nga wala añuloo. waaw añ na añ nga pourquoi mëno bayyi ba wacc nga da ngay añ fu xifé daw dem temps ba ngay def ci do ko def ci xam même pas 3 minutes te bu dee lekk au moins plus de 10 minutes mais ni nga mën a am concentration toog jël temps lekk ba pour pourquoi nga mën ko joxe noonu suñu borom. Mhm. xam nga parfois da ngay jaawle biir biir la quoi. boo ko ci def bu ci bu ci dara nekkul saako bu feesul du taxaw. Mhm. ay xam nga parfois yàlla di ko mën a leb. ama ah, parfois amoon naa benn copain ba boo toogee xalaat su ma toogee xalaat su xalaat dama naan parfois li ma ni mën naa nekk dëgg parce que moom koor bu juubee tey ba ba ñàkk ci benn fan danaan yàlla du ma fayoon toog moom ñàkk na. wala dina comprendre mais imagine boo xalaat tey ba ci biir yàlla moo ñu ne dee leen woor. kilo ko teg kay xam nga ne boo defee faux pas moom xam ne ne def nga faux pas mais boo ko ñaanee war na loo ko mën a may. si loo koy ñaan. Oustaz <laughs> non taxawal Fatou ñëwul ñëw. Euh, euh. Oustaz yaa ma gën a maîtriser yonente bi mu daan naafi la. ci guddi boobu xiif bay bëgg a dee. nettalil ko ko. non ay naafi la xam nga jamono ji kenn xoolal fii ñii naafi la jamono ji fii ñii naafi la ñii yeneen ci bi daraan julli ba jël xeer takk ci biir bi waaye naafi la te sa biir day fes nga da ngaa sonn da ngay tëdd ne la ba mu rees nga door a jóg ci man fii ndaw ñeeg mag ñëpp ci yem kenn naafi laa tur wax de xamal takkusaan mi ñuy ah, julli fu mu nekk cest mhm. jigéen ñàkk julleem mhm. euh, nit waru ko lu ñëtu waaw waaw parce que li ci jigéen du ci góor du ci góor la parce que boo gisee kii julliwut mhm. xamuloo ban ngànte la am dëgg la non maam moo tax li ci loolu yomb da trop non loolu daa yomb non cest euh, li ci jigéen parce que jigéen dafa am ay ngànt ko suñu borom di teg am na ci ñoo xam ne dañuy tappale waaye mais est-ce que makura ku julliwu da ngay ñëw naan ko lu la teree julli si maar bu dama am ngant yow suba léegi après et après foog ñu foog ñu ko parce que dafa am jigéen ñoo xam ne dañoo mën a tappale koor day jot ñu bañ a woor ñu ne dama am ngant dama fekk dara jotu leen maam Cheikh Sénégal fii ah, xam nga la ñun gis nañ façon bu nekk gis nañ li fi daw ñun xam nañ li fiy daw ma ne ci dëkk Mm-hmm. waaw ci dëkk bi dañuy dem ci école yi dañuy dem ci wa mbedd bi dañuy xam li xew Makura li nga wax du ma ko weddi li nga wax li nga wax du ma ah. ko weddi am na am na kay am na jigéen yoo xamante ni dañuy pare mais dañuy dafa benn dafa am loo xam bu ñu bu ñu instant boobu bu ñu paree dañu leen di tàqal ak julli période boobu pour ñu mën a julliwaat normalement c'est tout un problème mm-hmm. loolu am na mais man du question seen sàggante xam naa yàq julli bi ñu toog lu yàgg defuñu ko rek moo leen di coupé mais bu ñu forcé waate defaat effort def yitte bi dinañ julliwaat man ba tey waxoo ba foofu man dama ni am na ci ñoo xam te ne dara du la jot prétexte la ñu ut ngir bañ a julli wala bañ a woor bañ a def yooyu ci dëkk bi lañ dëkk xam na li fi xew. xam na ñooñu mooy ñi nga encadré. waaw non man encadré wu ma kenn. man <laughs> ñoom ak yéen yéen bokk seey comme ni ko Ablaye di waxee. Mhm. seey bi man sama seey bopp laa nekk ñun sama seey seey seey seey bi kii la quoi groupe restreint la groupe benn mais xam nga aussi maam euh, jamono ji jamono ji comme li ma wax dibi bi. diine seey bi leerul de diine ah. non see bi xam nga see bi ñaari façon see la ku ci dugg ngir baax wala ku ci dugg ngir xam àdduna di nga xam àdduna waaye ku ci dugg it ngir dem feneen di nga dem li ma oustaz wax sànq ne ma ah caabi caa caa caabi safara la ak caabi àjjana ak comme examen la rek d'office second tour wala ajourné rek ñett yooyu ñoo am mais aussi nga xam ne li ma wax jamono jii nii li ma la wax ni dëgg àdduna di doxee nit ñi noonu lañ bëgg a jël diine gi bëgg ko ànd ak moom noonu bien vrai que charte bi li fi diine gi teg mi ngi fii dañ koy respecté mais diine autrement lan wax. lan mooy diine autrement moo ko. autrement mooy comme yi ma expliqué léegi hmm. gis nañ fi def nañ fi gis. Euh, ay julli en gros def ay woor benn semaine bàyyi ay du ngeen la ay yooyu autrement woor benn semaine bàyyi loolu ñëpp la. loolu kenn du ñëw non non la isama coréen da ngeen di caaxaan rek xam nga la ngeen def jël mm. diine wutal ko jour te diine amul benn jour diine tout le temps la à tout moment tout heure am na ñoo xam ne ajuma ba ajuma la julli mu ngi noonu nag sa genre yi da ngeen ko jëlal benn jour rek kale ko foofu mm-hmm. kat maam Cheikh loo wax jëlee sa droite bi. mu xam nga parfois non li may waxee di di bindee la xam nga parfois mais aussi xam nga li ñuy wax de am na ñoo ajuma li comme li nga expliqué léegi ab tam man ba ajuma laay wala bu baax bu ñu daa gaamine ba mu temps banaa ko sax temps dama koy oyofal mais parfois ay temps def sama ajuma dama ko daan def ba mu baax teg sama koppati ba mu baax amoon naa benn espèce su kaala ma teg ko ci mais gis nga tey parfois xoolal kii xoolal par exemple kii tey kaay taxaw fii bul daw kaay ah tey bu taxawee fi ndax xam nga parfois dañuy gis jigéen ñoo xam dañuy def loo xam te ni nii euh, bokk si ah comme par exemple boo xoolee ni mu def nii yow maam boo xoolee di nga gis ni mu def kaas naa ko fu nekk wax naa ko fu nekk ba boole naa ko ak biraan mais est-ce que tey ku def lii ja boo jullee di nga am jullee wax loolu <laughs> xool ko. xam nga 88 628 10 95 88 628 10 a agsi seen émission ëttu ndaw ñi waaw maam Cheikh. Ablaye gis nga julli kenn du ko jugé. maanaam mm-hmm. jëlal sa droite bi ma koro julli. ñàkk éducation religieuse. moo tax xam nga mais gauche <laughs> xam nga julli <laughs> kenn du ko jugé. Mm-hmm. kii julli na nga ne ndax kii yàlla nangu ne julleem déet. Mm-hmm. Seydina Alioune dafa mës a toog ci jàkka ji am ku ñëw euh, julli julli bi gaaw mu génn jaasi ji ne ko julliwaatal koo ko xool jaasi ji xam ne kii jaasi la téye. moo julli julliwaat gu normal. mu pare mu ne ko xam nga ne sa julli gi mo gën bi nga njëkkoon julli mu ne ko déedéet sama julli gi ma njëkkoon julli mo gën gi mu mujjé julli nak gée donte gaaw na mais yàlla taxoon mais bi yalla taxul sa jaasi ji tax mhm. mooy li mooy jé boy diine légui dañ koy def ngir baña dugg safara rek ñu ci bëri dañ koy def dañ koy def parce que la religion oblige lolu moy borom niveau yu suufee mais bu sa niveau kawee doo jaamu yàlla ngir aljanna doo jaamu yàlla ngir safara da koy jaamu ngir ne jaamu yàlla nga yàlla la ko sant. point bañ a dugg safara. am na ñoo xam dañ koy def ngir bañ a dugg safara mooy li ma wax. léegi sama turandoo nee na kii jaamu yàlla. ngir dem aljanna wala ngay jaamu yàlla ngir ragal safara boo moytul sax ca ndugg seen nga jëm. ma kii ñori yaram bi kay taxaw fi yow. <laughs> jox ko bi day ñori yaram bi ma wax ko ca kaw. xamoon na ne danaa ko wax bés bi laa doon xaar waxal maam Cheikh non da nga koy xool nga wax. ayca waxal tànk ma ko yow mii su ma ñoree sama yaram est ce que su may julli dinaa koy ñoree di ko <laughs> su ma la joxul ma ko joxul cër su hmm. <laughs> bu ñu wax ci ci cadre colinu jigéen waaw voilà ñëwal ci colin bi voilà ñëwal ci colinu jigéen l'islam dafa sant jigéen ni ko hmm. la ngay sol fu la waxtu julli fekk na nga wax allahu akbar kon par exemple su ma déggee li wax kii li mu sol julli na l'islam daal loolu la non li mu sol julli nag yaay yaay yaay yaay xool sa bopp mais l'islam li wax mooy hmm. jigéenu julli la ngay sol fu la waxtu julli fekk waruloo àbb sax kol da war a jublu penku rek ni allahu akbar ak coli nii bees yi nii ma gis nii li ma la wax xanaa leer non maam Cheikh xam nga loolu bañ koy wax xamuñu woon ne colit yi dina xew kon yàlla xamu ko woon non ah. yàlla xamoon na ko mais xam nga parfois ñi ko ñi koy ñi koy wax parfois man dama naan bañ koy kenn jottali ko baatu yàlla na ni dina fi ñëw acuta ah, waay maam Cheikh ngor ah, foo julli man damay xam ne maam Cheikh ngor boo demee ngor tey ci il ba tey foo julli doo am julli est-ce dem am nañu ngor non ay nit a fay dem. en tout cas est-ce que am nañu ngor. loolu moom ah li nga wax léegi ci julli rek man xaw ma. parce que mais xam naa ne daal moom fa fa bërëb yi foofu fu fa waay julli amoo julli. waaw ma ne ña ña fay euh, fréquenté. Hmm. te ñu xam ne du bërëb bu baax est-ce que am nañu ngor. non xam nga tey fréquenté bi ak ak. ak ba xam am nañ ngor ak affaire man pour man dama naan euh, bokkul parce que boo fa dee dem fréquente da ngay a pour féexal sa xol ak gis leneen ak découvrir leneen. wala dem ñi fréquente ngor ñooñu ay julleeg ay yooyu taxu leen a jóg. ñooñu non déglu ma ñooñu. seebaa leen fa yóbbu. waaw xam nga ne ngor nit dina fa nekk. 7 heures du matin ba 8 bu ñibbee day sonn te du julli. ay 7 heures du matin ak 8 heures yooyu xew na. du julli ñaari fan lañ léegi ñu kooku day toog 2 jours yoo xamante ni du julli kon kooku moom diine gi mën nañoo wax moom yitteelu. mooy en gros bi ma la wax léegi léegi. wàcce non yitteelu ko kooku du fay sax en gros bay détail. si en naa man damay en ah man nag su ma la ma koy fay. am na yàlla li ma la ma koy fay. am ñoo xam ne nee nañu ay jullit lañu mais duñu julli waaw man. bëri na ci ay ay ndaw man man uh, dama na ma baal am naa ci waajoo sama xarit boo xam ne sama sama doomu ndey la. man dama dëkkee man dama dëkkee ak ay nit. Mhm. ñoo xam ne ay soxna lañu ay jigéen lañu léeg-léeg sax loolu laay wax ak ñoom moo damay ñëw ne leen waaw lu leen tere julle da ngay wax ba sonn mais pour nga gis ci ku juum ba jëwam laal suuf problème la. Mhm. te booy wax ci diine ñu dàq ñu ñu bëgg laa wax ne gënoo maa xam diine ji yàlla nee defal li ngay def bàyyi baak li ma def dëgg la lakkum diine ko naa sama benn xarit Malick la tudd de Malick imaginaire El Hadj Malick mhm. mm-hmm. papaam di musulman yaayam di musulman moom nee na ceddo la bi mu defee ay recherche am léegi ceddo lay proclamé wu parce que nee na maamam séeréer mi ay ceddo la ñu woon te kenn xamul fu religion jógee ba ñëw instauré ko Sénégal wax naa ba sonn nag mais mënuma ci dara man daal benn affaire lay wax c'est ñun dañoo dañoo dem ba ne la boo boo solowul sexy ñëw nekk au diapason teg cheveux def lii nekkoo ci dara daal dañ lay. considéré ko sax ñu ne meer nga. waa hmm. da ngaa meere mooy mooy zaare bi dañoo meere. <laughs> da ngaa da ngaa meere lan lay wax. Hmm. man nag benn c'est vrai loolu am na mais benn côté dama naan nit ki si côté diineem côté ngëm-ngëmam. Mhm. du question si solide tey mën mën naa muuru. Mhm. mais peut-être que du ma def dara lu baax. du ma julli. damay bëri moroom sax. damay damay wax lu safaanoog dëgg rek. Mhm. mën nga sol lu bon mais il y a chaque jour ci lu baax ngay dox ci lu baax ngay jëm mm-hmm. motax may la affaire gëm-gëm affaire mm-hmm. dafa ont lo dafa sew sew sew sew nga ont ne nii nga mm-hmm. juger apparence mais ken juger au fond dëgg apparence mom lañuy juger fait sol ci ngay ci ngay wax ont limu sol parce que donte mi ngi def lu baax. Mhm. mais la mu sol l'islam bëgg ko. suba kon yow la mu sol ngay jugé mais jëmuy jëf mënoo ko jugé. Mhm. parce que yàlla rek a xam. Mhm. mës naa ko am fu ma posé question mu ne tey bu ñu demoon ba al ba aljanna ñu dem ba yomal xiyaam yàlla dugal ñu aljanna ñu ne kii di ñëw kan ñu ne iblis la loo ci man dara loo ci man dara ñoo moom aljanna est ce que maay tijji buntu aljanna yàlla xam doomu aadama moo tax lépp mu téel ko boppam moo tax kon kii dem aljanna kii dem safara yàlla rek ko xam. Hmm. mais du tee bu ñëwee fii ci àdduna yoon yi mu të tëral ñu wax ci. Hmm. parfois parfois nga dégg ci sax ñenn ñi naan ay diw moom bu duggee àjjana moom ma xam ne man ma war a rafet njott xam ne man ni damay dugg àjjana mais maam Cheikh xam nga lu ma jaaxal. da ngay seet parfois ñu wax souvent ñi wax loolu baax de. <laughs> oustaz daal léegi seytaane danga naan istro li mooy la yaarama kàllaa ce qui biir. mooy sama saar li ma biraan di wax sëñ Babacar Si radiyallaahu bi ñu ko laajee seytaane seytaane nu mu mel. maam Cheikh ñu ko jàngal bi ñu laaj sëñ Babacar seytaan yi nu mu mel def ne dina son bu basin di lekk ceebu jën mi ngi ci biir nit ñi mhm. bari na ku naan seytaan seytaan te yow sa bakkan mooy sa seytaane dëgg la waaw parce que loo dugal sa passion moo la ci dugal sa bëgg-bëgg moo la ci dugal su baa yow ci sa bopp yaay sa noonu bopp mhm. keneen koo romb nag naan euh, sama examen bi ma ñàkk diwa sama li ma ñàkk diwa fekk yow yaa ko ñàkkaloo sa bopp 88 628 10 95 88 628 10 95 mooy numéro bi ngeen di jaara ngir agsi si seen émission ëttu ndaw ñi ñuy waxtaanee tey euh, ndaw ñi ak euh, diine gi nak naka la ñuy dundee ñoom Makoro Diagne nekk si see bi nak léséeral ko loolu ba li nga xamante ni nag yaakaar naa ni gars dafa mel xaw nañ laa xaw a laal tuut moo tax moo tax biraan mi naan waa caaro yi ñu lay dégg dañ defe ne paaga ci booy yi nga bokk ci see nga bokk xam <laughs> bàyyi ko foofu rek man moom man moom maag yéen ñoo bokk génération uh-huh. ñi la gis waaw ñoom <laughs> mais ak mais ma yow am na ñoo xam ne ñoo ma la njëkk a gis uh-huh. non man bi ma la gisee yàggut ma lay gis mais man yitteelu ma la uh-huh. parce que parce que ñi ma ñi may gis mooy ñi may déglu ma ko ban jour live émission Safina dimanche xam na ay temps dimanche. am na ay temps ba tey parfois <laughs> c'est que parfois ay dimanche ak samedi yooyu une heure laay yow une deux heures. xam nga xam nga sant yàlla. xam nga damay ne sant yàlla. Mhm. parce que boo demee ci yeneen rajo yi duñu la jox temps d'antenne bi nga bëgg a wax yow ci l'islam. Mhm. mais ñun fii au moins euh, euh, safina sant yàlla. Mhm. tey ñun dañuy def animation musique afro arabe. mais euh, temps d'antenne bi bi ñu bi ñu ñu jox tey boo ko bëggoon ci yeneen rajo yi mu peut-être mënuloo ko am. émission yooyu amu fa sax. am na ci am na ci rajo yu am na ci rajo yi mu am waaye nag léeg-léeg dañ koy def nii rek ngir tuur nit ñi leen dem mais diine ji zéro zéro pour cent lañ ko jox non mais da ngay tamit waaw da ngay jël heure julli sax ci heure julli sax la ñuy teg seen def seen yooyu wala ci la teg seen yooyu noonu sax ngir mën a na ñi nga xam te ne ay jullit lañ wala xool xoola jamono ay temps ay timis bu jàkkee dinaa allah akbar lañ daan teg seen film yooyu noonu ñi koy ah. teg ay lan lañu jul Sénégal Sénégal gi ay lan lañu ay jullit télé bi ki ko jiite musulman la te ne nañ Sénégal a ko moom askan a ko moom ay télé privé ak ay télé yoo xam ne mën nañ mën bi télé askan wi la bu jàkk ji ne Allah ba la ñuy teg seen film ak ba tey euh, ci la faatu muuroo ba tey waxuma Assane sax booy booy rubi rubi taxoon euh, ndaw ñu bëri dematuñu woon guddi ñun xat xat xat di nga dem. daayira vingt heures la ñuy commencé daayira vingt vingt vingt heures et trente la ñuy commencé vingt deux heures ñu jeexal. mais est-ce que groupe bi commencé nan ngeen mooy rubi. mooy film boobu xewoon foofu tay booy. moom laa moo tax may la sant yàlla la ñuy def parce que am na ci koo xam ne boo ko préparé film du ko du du ko tax a tardé ci kër yàlla. Mhm. alhamdulilah. Mhm. ndax euh, ñun dañuy commencé vingt heures trente jeexal vingt deux heures. parce que daayira heure lay am yaa ngi dégg. Mhm. ñun man man am naa télévision sama néeg man am naa télé sama néeg mais toog naa lu ëpp une semaine taalu ma ko parce que yitteelu ma li ma yitteel mooy bu ma wàccee taal sama ordinateur xool waxtaanum sama kilifa ma déglu ko et puis c'est tout. Mhm. parfois pourquoi tey duñ naan ay borom tur yi tur yi tur yi ñoom ñooy jàdd góos dañoo yëpp mbokkuro mais xam nañ ne mbokkuro moom mi ngi bi waaw yàlla rek mais ay borom tur yi seex yi ay Ibrahima ay ay ay ay Malick ay ay ay Xaadim ay Babacar te boo seetee ñi ci ëpp ñi ci gën a dëng tur yooyu la ñuy yor. xam nga lu tax. bi ñu demee ba ba mu ko xool Cheikh ne ko xës xool xool Aliou ne ko Alisco. xool Babacar ne ko Babs. mais pourquoi pas parce que suba amatul tur ba. non xam nga pourquoi tur yooyu man pourquoi dama naan tur yooyu man pour man man je préfère tur yooyu parce que mënu ma xool tey benn ab Cheikh ah yëkkat nag Cheikh ba pare teg si leneen. est-ce que personnalité tur a koy jëmmal. non mais maanaam ci déggin quoi par comme par exemple maanaam ci déggin par exemple mënu ma gis benn Babacar ne ab ne ne Babacar wala te ne ne bu waa ko tudd alaaj ma ni ko alaaj maa rek teg ci ab daggu saaga xam nga.

naka mbokk yi man ñu si jàmm ñëpp <laughs> <laughs> si jàmm noo tudd ak fay woote si piki ne ko wallahi moom la ñu ngi lay ziar lu bay ma makura ak doom bàjjanam boobu lay ndeysaan doom bàjjanam di ko yab lu mu wax rek mu ne makura mais maa ngi leen di ziar wëree wër baarakallah di am kontante ci yéen bu baax a baax ah yàlla na yàlla sàmm ñu rek yàlla na yàlla aar ñu allahumma amin insha allah jamono eh, jamono buñ toll nii ñii mhm. baax ngay baax bon ngay bon dëgg la loolu bu jamono commencé la nag waaye hmm. nekkul ne léegi facilement lool am mu jeex fi wala facilement loolu kii noonu noonu loolu yombul hmm. jamono bi mu commencé ba léegi hmm. ñi ñi doon bon ñoo ngi bon ñuy baax ba léegi ñoo ngi baax waaw ah, kon nag ku ku nag ba tudd Mouhamad ñu lay woowee moo ah boo demee ëllëg <laughs> bu bu bu ñu rappelé sa tur bul xaar bul xaar Mouhamad xaaral moo rek moo xool ndax di wuyu kon yàlla na yàlla aar rek. incha allah mais kontaan naa ci yéen maam Cheikh. baarakallah aussi. yàlla na yàlla doon ñu sutura. allahumma amiin ñoom li am na solo lool fa tabarakallah dama leen di xel Fatou Seye. dëgg la moo tax ma yab doomu bàjjanam boobu ma ne kii moom bu moytu man maa koy fekk foofu dafa mu bàyyi ma kura. waaw waaw dëgg fa yàlla. macha kontaan nañ ci yéen jërë ngeen jëf. salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, ñu koy jaajëfal bu baax Siré euh, si doon ñu woowee ca Pikine euh, Icotaf ñu lay li nuyu ñoom waa Pikine Icotaf tali mag ak Texaco mën ngeen def ni moom jaar ci 88 628 10 95 88 628 10 95 di numéro bi leen permettre ngeen dugg seen émission ëttu ndaw ñi ñuy waxtaanee ndaw ñi ak diine gi mais Fatou way jur bi nga xamante ni moom moo war a teg euh, doomam ci ci ci ci ci yoon siraatal mustaqim comme ni ñu koy waxee moom it est bu jàngul war naa mën a teg bu gisul doomam bu bu julliwul wala woorul et tout est tamit euh, loolu war dina sotti. wax jee nga foofu nag yow Ablay mm-hmm. xam nga dañu ne tout le temps bu ñu ubbi rek dañu ubbi école wala wut ay professeur pour euh, xale yi. Mm-hmm. mais parents yi ci boppam ñoo war a jàng. Mm-hmm. ñoom jàngu ñu jànguñu ñu bëgg a yaraate moo tax xale yi nii rek lañ mën a def. moo tax parents yi boppam.

ak kilifa gi Makura. Mm-hmm. ñu ngi naan ñooy naan ko xëy na melul noonu sax mais pour plateau bi neex rek foog mu génnee foofu daal ak ñun. Mm-hmm. si see di ñoo ngi di ziar bu baax a baax am na solo lool. Mm-hmm. yal yàlla yàlla mottali. ndax jamono moom yaakaar naan fa mu nekkoon ba léegi mi ngi fa. xëy na tey jikko yi ñoo déplacé wu. mais di ñaan yal yàlla dolli sutura. amiin may ñu xolu muñ bu baax a baax. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah ñu koy jaajëfal bu baax a moom soxna Zeynab Guèye wala Gaye. gay Gaye yow sant bi neexul tërëraat jigéen woote ci émission bi góor rekk ay woote baax na ñu koy rafetlu ma wax yeneen jigéen yi nan woote parce que plateau jigéen di woote. boo meloon oustaz maam rek maa fi woo toog ah. a ma fiy ci gars ma koy jaalewaat encore une fois Ndeye Sow dëkk tubaab jalaaw te mu génn ajjuma samedi samedi passé lam juróom-ñetti fan ma koy jaalewaat sama xarit ñoo mm-hmm. defandoo seconde première terminale mm-hmm. moom dafa mos woote na du benn du ñaar 88 waaleykum Pasal. Pape Sall Parcelles Assainies ñu lay nuyu. ngi di nuyu acca da nga bëggoon participer ci émission bi. waaw teewoon une tonté bu macha allah. ñu ngi rafetlu bu baax a jërëjëf. di wax teewoon sama xam-xam te tey si la wut si sama mhm. paase maam rek. maam Cheikh. waaw li wax rek ma nga ko. waaw. ndax comme te dina lu ñu tax a jóg. moo tax ñu toog suñu ginnaaw moom rek. dëgg la. li mu war a mun def. di ko ñaanal gudd fan. amiin amiin amiin maa ngi nuyu sëñ fan sama xarit. di ñaan ñu ñu transfert. yow nag day bi quoi. dëgg la dëgg la. waaw incha allah ñu ngi rafetlu baax mm-hmm. jërëjëf euh, Pape Sall Labtoor Bourguédé di ñu woowee ca Parcelles Assainies moom di fidèle auditeur ëttu ndaw ñi ndax sax àllarba dina woote ñu koy jaajëfal bu baax mën ngeen a jaar ci moom ci 80 def ni moom nag 88 euh, euh, ñu bàyyi la nga wéyal. waaw Ablaye fi ma tolloon rek. Mhm. dama ne parents yi ci boppam ñoo war a jàngi. Mhm. s'il le faut sax ñu bu waaj école pour parents yi. Mhm. ñu jàngi parce que weesuwul parce que lii compte. genre comportement bu continuer mhm. ndaw yi rek ñoy sànku ji mhm. waaye tamit ñu sant yalla parce que amna na daayira yu bax yu fi nek yo xamanteni ni ndaw yu bax ñu ngi ci génne ndaw yu mhm. bax ñi ngi lay xana rek parents ñu ñax leen ñu jëm ñom ñoom ñom mënuñ ci def dara mënuñ ci jëm dara ñu jëm approcher wu ci daayira yoy duggal fa seeni dom ndax ñu mën leen sauver moko ko est-ce nga daayira <laughs> man. waaw ah. temps booy. temps booy bokkoon naa daayra. <laughs> waaye mais léegi booy nga ba léegi. xam nga non non maa ngi ci kii génération maanaam diggante bi quoi maa ngi ci génération diggante bi. parce que mais booy jeune nga ba tey. waaw euh. jeune mais xam nga parfois daayra man ba ma ciy bokk. man dama gisoon daayra ak léegi ni ma gisee daayra. mënuma cee bokk. lu ci lu soppeeku ci daayra léegi. non xam nga bu njëkk daayra dañ ko doon def ndax toog am bootu ci sëriñ. ah dem euh, ndax yàlla tax. mais léegi maam Cheikh daara yi dama ko cee gis ngir su ay léegi daara ci ay jëlante la te man ay jëlante yooyu dama see doxut xam nga maanaam lu may naan jëlante mooy ga daara yi parfois maam Cheikh day gis tey tey day gis benn man biraan ñu ñëpp ñu bokk biraan benn gis ci benn jawañ ah ne jawañ moo ko boole boo tax mu bokk si daara bi xam nga kooku yàlla taxut te man yooyu xam nga man su may dem ci dara man dama naan lii moo ma fi indi mhm. waaw fekkee lii amu fi man damay baax su ma demoon tey bay bokk daayira dama naan daayira su ma ñëwee sama sëriñ wala yàlla su ma fekkee damay ñëw ci daayira gisuma ci yàlla wala gisuma ci sëriñ wala gisuma ci sama bopp je préfère ma dem toog def li may def parce que li def ragalu ma ko ci loolu man du ma défendre boobu ngay wax mhm. mais aspect bi ngay bi ngay yow xam nga da ngay fréquenter ci boîte yi dem boîte ak dem daayira bu gën. non boîte boîte su ma demee boîte boîte liggéey la damay dem ci pour liggéey quoi. non non non fii du xanaa du liggéey Safina du liggéey Safina non du liggéey Safina sa liggéey personnel la. non xam nga dafa am yoo xam te ne mënuñ koo wax fi mais xam nga tey am na mais xibaar xibaar xibaar kenn nu ko jëlee ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ra ci fii. ci daayira xam nga non daayira sax ba mën nañ ko jël. li ma wax nii xibaar la ci daayira mais xam nga tey par exemple. Safina comme li may wax nii par exemple lu ma dama dama am lu ma la bëgg wax c'est-à-dire gis nga daayira daayira ñu ngi jàngale hmm. ñu ngi yar hmm. kenn ku ci nekk nag ak sa ñëwin hmm. kenn ku nekk ak sa ñëwin man xaw ma dara mais bi ma yàlla dogalee mu jógee daara ñëw da bëgg a bokk daayira ñaari condition lañ ma tëralal daayira boo ci bëggee bokk boo acceptéwul ñaar doo ci bokk mooy boo nanguwul jàng doo ci bokk boo amul éducation doo ci bokk ñaari condition lañ ma la ma laxasu dem jàngiwaat parce que xam xam naa ne awma li ma bëgg ca laa jug bokk ci biir di jàng mhm. c'est-à-dire pour wax pour wax la ne euh, boo dul dem daayira mënoo toog fële bëgg a juger daayira yi mais nag itam ñi nekk ci biir daayira yi nañ leen xamal li leen indi ci biir daayira yi pas nekk ci biir toog di messageante mhm. bu dee ne yàlla moo la ci indi dangay def sa programme boo paree nga dem mais man man d' accord ma ci daayira ba ba une heure du matin. d' accord ma ci daayira ba zéro heure. parce que li tax mooy dañ leen di dë dañ leen di mujj dëkkal fu ñu dëkkul. te daayira yëpp wax dëgg yàlla objectif bi ko tax a jug mooy yar nit. xamal ko kan mooy boromam. ba mu jubóog boromam. loolu mooy ba ci biir nag ñi ci dugg nag. ñenn ñi parfois ñooy indi seen seen bëgg-bëgg bopp. yooyu moo tax man du ma bokk daar ba daa ma man koo nekk mën ngaa jaamu yàlla quoi. foo nekk mën ngaa jaamu yàlla man pour man ay bokku daayira affaire xam nga yëpp pour man yoon la rek à péage la rek ak autoroute bi ci suuf euh, benn bi da ngay jël péage dem boo jëlee ci suuf di dem fu ci gën a gaaw sama gis-gis man fu bi daw nànk dal nànk lu gaaw nga yegg dal bu ci gën a gaaw lañ wax waaye ah, gaaw lañ la dul téye en fan fan lañ la dul téye fu andu mais di nga yegg téye bi am problème mais l'essentiellement di nga yegg àdduna ak ay yenn rëq-rëq ñoo ànd mhm. man daal man man sama gis-gis man ay bokk daayara yëpp man pour man sonalu ma quoi man mhm. yalla no naa na naa def li yàlla santaane ah après waaw ma def leneen loo xam nit ñi daal kon ñoom bu ñuy defee seen guddi àjjuma toog di bàkk suñu borom yow yaa ngi yow yaa ngi defee yow yaa koy defee ci ca boîte ya. parfois bu neexee bu jàng yi ma ñëw bokk si <laughs> faatu dama ko bëgg a xamal rek man de yow mais man daayira na temps c'est tellement sacré pour man su ma doon wàcc vingt heures sax. su ma jaraloon sax damay sama col nga dem def direct parce que raté. day affaire c'est tellement ancré en toi que bëgg lu précieux lay doon ci yow. Mm-hmm. kon nag dama lay ñaan nga génn sa see bi. jéem a dugg si daayira bi daayira bi xam nga see sa see nga nekk mais daayira bi dama ci dee bi tamit ngir yàlla ma ko dama ko ñaan. xam nga mooy see expliqué la yéen wax see see léegi mooy see. man de ba tey xamul li see yéen yow laay dégg nga di ko wax moo tax. est-ce que dama lay laaj dama lay laaj définiral ma luy daayira. ñëwal ba pare yow. lu <laughs> may ñëw. waaw yow tàkko. yow bokk nga daayira yow bokk nga daayira tàkko. man waaw. dafa leer. Mhm. lu tax nga bokkoo ah, ah, tout d'abord nga dëkk Cambérène bokkoo daayira c'est gis ku ko def ma ko réew war nga say xam dara. man tax bokkoon naa daayira mais léegi. bokkoo ba tey man lan moo tax bokkoo daayira jëluma loolu loo xam ne nii lu may mun a teg si taabu bi la parce que loolu gëm dama jàpp ni loolu mënu laa tere bokk daayira daayira a meloon ba tey mi ngi ko mel. lay xew nag après buy xew mën na ko xewee sa suuf loolu ñoom la concerné mais daayira wala fay xew mu ngi fay am ba tey man damaa bokk daayira damay dem daayira Nek ci bir daara bi nit ñi di jàng ngay whatsapp wala facebook wala snap kuku snap maam si waxatu kuku snap bi kuku snap yaay tej tëj bi yow oustad euh, oustaz non ba daara ban waxna sank sama gis-gis daara du ma si ñëwaat da par xam nga pourquoi ah sama gis sama gis-gis ci daara man waxna ko xam nga parfois da ngay gis man nima la wax parce que man daara ni ko nit ñi jëlé mhm. ah ban sama gis-gis ni ko nit ñi di def man gisuma ci sama bop mhm. amna nak daara xam te teggu nañ ci temps mais heure yooyu ñu def daara arrangé wu ma maa mais xam nga daara yi ndaw yaa fa ndaw yaa fa nekk tey ñuy waxtaanee ndaw ak li nga xamante ni moo di religion daara yi war a nekk loo xamante ni peut-être ndaw ñi dinañ fa gën a ku xamul woon sama genre gi na xam ne jànguñu kiiwuñu war nañoo mën a mën a bugg bokk ci daara yi pour mën a au moins di liirantoo di gën a kii mën a xam seeni faratay julli lan moo la war ci julli lan moo la war ci jàpp ak koor ak ñoom it seen ak ñoom it seen mais yow yow aspect boobu nga gisee nga gisee daara ji yaakaar naa yéen ñu dul dem daara yéen yéen a gisee aspect boobu yéen bokk yéen ñu bokk si see bi doo dem daayira xool ko mi ngi daw ma. xam nga xam nga sëriñ Moussa daf ma définiral ñett. muy sharia. sharia application la maanaam l'islam application la amul mais wala c'est-à-dire. dëgg la bu dee li ñuy tuddee xaqiqa moom yëg-yëg la kenn ku ci nekk li nga sentir sa diggante ak sa borom. maanaam du ma jugé nit ne kii soppul yàlla wala kii nangam bu dee nag tariqa comportement la. mais bu ñu waxee comportement nag mooy comportement boo xam ne ku la xool naw la bu dee daayira la ñu ne mooy ni malaaka yi di toogee ci seen kanamu boroom waxin la malaa'ikullahi la ziltum min al kurama xafat bi jamicumu tuuba liman xadaru yonente bi wax beneen wax ne bu ngeen rombee jardin ci jardin wu aljanna yi taxaw leen ngeen witti ci ñu ne ko luy jardin ci jardin wu aljanna yi mën nga ko définir daayira te mooy fi ñuy bàkkee tur yàlla mais tey da ngay gis ku romb nit ñi def daayira li ñuy wax ñii dañoo dañuy dañuy tànqal nit ñi man mës naa gis benn maire ku taxaw du du sax maire benn soxna te fa mu toog ci jotaay diine la mu ne kii noddu seen kii noddu seen jàkk baat bi dafa naqari heure bi muy noddu nangam ak nangam te image <laughs> te bu ñuy te bu ñuy malax sa télévision nga yokk ba mu sës amerde waa kër gi <laughs> mais <laughs> am na ñoo xam te bu ñuy noddu seen baat neexut waaw mais mais est-ce que est-ce que est-ce yàlla kay max la est ce que xam nga ne euh, nit ñi ñiy toppandu bilal di neexal seen baat ne bilal la top topp noddee hmm. bilal daawul noddee noonu waaw mukk parfois allah akbar bi bilal bilal nodd mu nga ci yitte allah nodd bu dëgër talul woon sax neexal ndax ni leen buntu xataale woon hmm. mais da ngay gis kuy nodd bay nelaw parce que bakkan lay nodde nodd cinq minutes est ce que kon su boobaa dañ naan kii nodd bi neexul nodd bi amul solo li am solo mooy nga jox yàlla sa bopp hmm. 88 628 10 95 88 628. jëlal eggale 10 95 jëlal taa ko. jëlal eggale doo taxaw di ñu seetaan. <laughs> lu ma eggale. acca waxal. yow lu ma wax laa lay mhm. man gisuma ni loolu yow moo la tere genre nga ni bokkoo daayira parce que. dafa am yoo xam ne ni dañuy nekk foofu di kukku si na ba ay whatsapp ak dugg na fii génn na fii bokkatuma daayira parce que bokkatuma daayira xam nga lu tax par yàlla sax daayira boobu tas na fa cela veut dire que bi li ko taxoon ci duggee gis gis yama ci daan gis ni neexuma xaw maa sob taxama man xam maam si àll man su may too su may tooy su may su may dee ci àll na ma gaynde rey man su fekkee su fekkante ni te su may def dugg ci dara dama ciy dem ba taq ci rib mais su ma ci duggee gis ma ci naka su dul ma génn daara ji ba ma ciy génn ñu ngi ma naan tax mu génn ci boobu daara baa ngi neex xumb yi bëri ci saqar ci loolu nga booy dee jàll Ah. te am na yeneen rab yu nekk ci àll bi. parce que gaynde xam ko xam nga yow xam nga gaynde gaynde la. mais gaynde lëg rey na ko ci àll bi. lëg waaw. Ah, xam nga tey waxe kii su ma daan gaynde ko par que waxin la quoi parce que su ma naan cela veut dire que ma gaynde rek cela veut dire kon xeex naa ba ci ba cappaandaw xeex naa ba lu ma am jël mais xam nga tey ja daara jamono ja may bàyyi mi ngay neexoon am kees gi am xaalis xale yu jigéen yi bëri ci lool ah fu fu xër a xees rek waa ku ku daan la ci daayira la ci daaneel. mais dañoo dem ba daara parce que lañ ci ne lañ ca la ca nekkoon moom dama ko gis muy jigéen hmm. ak xaalis hmm. ku daanu ñaar yooyu hmm. maa ngi euh, nuyu de passage oustaz Ndiaye euh, tabaarakallaa muy suñu magu yàlla boole ñu mu jàngal ma bari euh, oustaz daf ma doon wax ne daayira boo ci nekk da moytu ñaar mooy moytu jigéen ñi moytu xaalis ma ne ko alhamdulilah de. kon alhamdulilah ba ma bàyyi daay ma ne ko man de ma ne ko man de fii ba fii may wax ak yow nii message bu mu mës a envoyé jigéen bu ko neexee mu publier ko ci Facebook. billaahi. Mhm. ma ne ko bu ma ko mës a envoyé moo xam WhatsApp la vocal ak lu mën a doon mën nga ko publier ci Facebook. Mhm. mais bari nag ñoo xam ne léegi seen téléphone yi dañ koy côté bëgguñ seen parents gis ko. Mhm. pour wax la ci wàllu parents yi. man bi ma njëkk man Dakar laa juddoo. ñu bari na pour ñu Saalum la juddo mais dama fier ci doon Saalum -hmm. Dakar laa juddo fi Grand Yoff. Mm-hmm. dem jangi Saalum. mais bima ma am ko yoni cigarette fekk sama papa ngi tok ci mbedd mi di wër bi bi paré xol ma ne ma loo téye woon ma ko dañ ma ñor cigarette mané ko mu bu ma la ko mësatee gis nga téye ko di kéro ngay dé mais ba tay ji aw ba moment yoy ba légui nit ñi moo ma yoni cigarette. -hmm. duma ko sax téye. xeetu cigarette rek laa cigarette tax a xeex sax. 88 628 10 95 allo. allo. moom euh, dem na mën ngaa ñëwaat euh, ci 88 628 10 95 88 628 10 95 maam Cheikh wéyalal ci wéy wéy côté yi. moom lay wax ma ne 10 mhm. euh, allo. asalaamaaleykum. waaleykum et ndaw yi suñu et maa ngi leen di ziar bu baax a baax. ñu ngi doon ziar bu baax doo tudd ak fay wootee. Mourtala Nguer mhm, bu baax. fekk ak seen fidèle auditeur. dëgg la Sall Ngaare Lam Tooro mi fi génnee léegi. dëgg la dëgg la. maa ngi leen di ziar baax a baax tey dëgg di kontaan li ngeen def. ñu ngi ziar bu baax di la jaajëfal. wax dëgg yàlla yokkoog ndam rek ngeen ci am. incha allah amiin merci beaucoup. ndaxte yéen a yéen a ngi gindi ñu bëri nga xam ne xamuñ dara dañuy jéem rek. Mhm. ñoo ngi jàng bu baax a baax ci yéen jërëjëf jërëjëf wax dëgg yàlla ñiy déglu te ñu dugg ñoo ëpp foofu ñuy dugg dëgg la yéen bu kenn dul dugg it mhm. li ngeen di def amal na solo waa réew mi yëpp dëgg la parce que waa waaye maa ngi ziar baax a baax a baax te di leen ñaanal jàmm amin insha allah di kontaan ci yéen nag mhm, jërëjëf di ziar baax a baax jàmm ji fi nekk ak mhm. kaf beeg réew bi maa ngi ñaan yàlla xeeb dolli amin amin amin ci daraja muhammadu rasulullah dañ nañ baax baax jëla ngeen jëf uh-huh. murtala nger dakar parcel murtala njay murtala nger nger nger ah deug la man ak fall ngari lam toora nak ñoo feggo bu ko defé bu bu siar bi accé ci mom rek ma jall fi ci man inshallah inshallah murtala nger dakar parcel inshallah fall ngari lam toora inshallah jere ngeen jëf jere ngeen jëf jere jëf jërëjëf moo euh, Mortal Guèra di wootee ca Parcelles Assainies nee na nag moom ak Pape Sall Lamtoro ñoom ñoo ko fekk ñu koy jaajëfal bu baax mën ngeen a def euh, ci ni mo jaar ni moom nag def ni moom jaar ci 88 628 10 95 li ñu dese ci waxtu nag xawatu ko bëri tuuti tuuti nag euh, kon dañuy xaw rek daal di ñëw ci joxe tënk nag joxe ci ay solution jéem a nag ñaax ñi nga xamante ni genre makoro gi nekk ci see bi ñu ko mën a changé tuuti tuuti xaw a jéem a uti ndax déegi see gi boo ci topp te nag Mawti jël na ndaw ñi na ma yàlla baal rek waaye dafa mel ni Mawti ciblé na ndaw ñi bu baax a baax Macodou xam na li ma <laughs> koy wax. macha allah fi may fi may daanee ci côté uh-huh, uh-huh. Euh, surtout ci wax xam nga souvent lu ci ëpp dañuy wax ci wàllu parent. Uh-huh. Euh, parent nag buñ ko waajalul. doonul parent. parce que boo dee encadré te encadré wuñ la. kooku doo mën a cadré kenn. moo tax foog ñu cadré la nga mën a cadré keneen. donc. Euh, dafa am ku mës a benn jële ko kii. 88 628 10 95 allo. salaamaaleykum Madou Gat. waaw Mor Talla ajo. Makoro nekk mu bokk. Makoro. mu bokk ci daara yi mu bokk ci daara waaw. Uh-huh, dégg na la. tabaayu saa bi amul solo. dégg dégg na. Makoro. waaw waaw waaw incha allah dinaa xool dégg na <laughs> uh-huh. parent bi dafa woo doom du mu ñëw. Mm-hmm. fekkee dom ji da doon wax rek euh, di nar rek manam di fen ngeen bal mhm. papa ji deg ko ñew ba ci mom ne ko bayil fen fen baxul man bi may toll ni yow daawu ma fen xale bi réfléchir ne ko ah, papa bi ngay toll ni man daawoo fen ne ko waaw mu ne ko kon kañ nga ko tambali <laughs> kon kañ nga ko tambali deug la pour wax la mhm. euh, légui nak ci lolu xale étape par étape la

dafay joué. léegi xale yu bari léegi dañ leen di bàyyi ci kër yi ñu def àllub nen. dëgg la du ñu sol tubéy du ñu sol dara pour pour de chambre ci buntu néegi lañ koy teg ku la romb gis la te xale bu ñu koy nampal sax dafa am na ko noo koy nampale parce que dañu lay wax ne booy nampal xale fexeel fexeel ba boo koy jox ween bi fexeel ba beneen ween bi meewum bu mu toq ci awraam bu amee bu amee rek di nga ci am loola naqari te du teg tànkam ci lislaam parce que yooyu dafa nekk loo xam ne léegi ñu bari bàyyiwu ci xel. ñi ñii sëy xamul nu ñuy sëyee ñii nampal xamul nu ñuy nampale ñii éduqué xamul nu ñuy éduqué ñun ñëpp ku ci nekk da ni ñuy defee stage ci rajo pour keneen dégg la. noonu la ñu waroon defee noonu la ñu noonu lañ ciy war a defee stage ci lu mel noonu. Mm-hmm. mais nag daanaka àdduna àdduna moom ngay gis étape étape da ngay jaar fii boo fa jógee dem fu gën a kawe nanga mm-hmm. mais itam fii éducation bi loolu islam soxla. Mm-hmm. dëgg la maam Cheikh Ahmed Tidiane Diop 88 628 10 95 Makoro. waaw damay ñëw comme fi mu fi fi fi fi mu daanalee rek. Mhm. côté éducation de base bi mu wax. Mhm. parfois man doo doo doo mën a jël faute yëpp teg ko parents yi. non non non. damay damay indi sama sama xalaatu bopp. Mhm. fi Cheikh daaneel parfois xam nga am na benn côté mën nañ mën nañ ni parent yi benn côté it. ndaw ñi nag ndaw si xaw ndaw siit waaj it wala ndaw siit mën na jël yoonu boppam. parce que mën nañ fi ne loo defar mën nga yar sa doom sa doom génn ci biti mbedd bi détourné ko. Hmm. am na fi ba taay ñoo xam te ni àndandoo moo leen di yàq. non am am na ñoo xam te àndandoo moo leen di yàq. Hmm. wala comme parfois bu fekkee say say euh, njabootu jamono ji la ah bu bàyyi xelee de mes doom jabar de men teg ah doom moom it ku koy yar ak ku koy dressé bu defee lu lu yoon ci bés. yaratuñ dañuy yefal. waaw yafal gi moom bëri na trop surtout ci jigéen jigéen ñi li ñuy yefal jigéen ñi bëri na trop. waaw maam Cheikh xool da ngay ñeme wax wax ji rek. <laughs> xam nga xam nga yaa ma gën a xam li ci bëri mais nan ñeme wax ji rek. dama ne ñi ci bëri yaratuñu. dañuy yafal dañuy yafal. dañuy moo tax ci cadre ne dañ koo yar mu génn yàq jikkoom man d'accord ma ci foofu damay gëm dañ koo yafal ci biir kër gi moo dajee kuy mbëkkanteeg moom. <laughs> mu génn ko xam naa mu génn gis ku mel ni ab Diop quoi. ku mel <laughs> ku mel man fu mel ne ku mel ni man dañuy ànd rek ñu ànd rek waaw dañuy ànd man man ma mbëkk kenn. mais aussi xam nga parfois. parfois nit yar na doomam fi mu ko war a yaree def li mu war a def. maam Cheikh mhm. génn mbedd bi yàq ko am na gis nañ ko fii mais aussi aussi euh, day fekk. baal ma ne gis ngeen ngeen Ablaye. Mhm. c'est-à-dire débat bi dafa am solo moo tax point bu ñu romb rek. dëgg la bu ma ci amee xalaat dama koy bëgg a indi. Mhm. c'est-à-dire mbedd moom ngay tudd Macron sëriñ Cheikh ne ne mbedd yaa ngi ci kër yi léegi. mbedd yi nekkatul xale yi génn nga naan ana ñu ne génn mbedd yi ñu ngi ci biir kër yi. te mooy li ngay li ñuy seetaan ci télévision yi ñoo gën a pur li nekk ci mbedd bi wax naa ko fi semaine passée kon mbedd yaa ngi ci biir kër yi da ngay toog ak sa doom muy seetaan lu bon nga bàyyi ko ci bu dee da ko koo zappé jàppal ko leneen war nga ko expliquer li mu romb lan la waaw mais day zappé rek noppi ah te mhm. boo ko expliquer booy génne foog mu jéem ko foog mu jéem koo xam mhm. ñaareel bi mooy télévision nga teg film def ci interdit xaw ma moyen de lan mhm. moyen moyen boobu nga xas wax mooy tax nit ñi danañ lu ñëtu pour lan la parce que yàlla bi mu bindee aadam wàcce ko aljanna bu dul patt rek parce que nee na aadina aadama lépp leew na la fi ba mu des garab gi bu ko laal parce que yàlla xam na ne bu noppee rek aadama du laal garab gi te foog aadama laal garab ga pour mu indi ñu ci àdduna moo tax ki bind te tegtal film am ne mooy de nangam ñu ñu yées at boobu ñoo koy gën a seetaan. ñu mais mais xoolal bi fi tuddoon bul xool tax na nit ñaa ngi xool. 88 628 10 95 allo. salaamaaleykum man Cheikh Diop. waaleykum salaam. yaa si jàmm. gërëm yàlla bu baax. d'accord naa seen matuwaay seen doom yi loolu moom dàqoon naa si ne wax <laughs> loolu moom dàqoon naa si de daara yi moom jël ñu matuwaay de ah, ah. léegi léegi moom àdduna bi moom jël yàlla xam doy na nañ ko jël nag nañ ko jël waaw yàlla baax na dañuy baax ba léegi dañuy léegi ba li a yi bon ba léegi nag <laughs> ndeysaan shukran jaajëfal nañu ko bu baax euh, soppey maam Cheikh Ahmed Tidiane Diop 88 628 10 mu mel ne juróomi simili léeg euh, moo ñu dese Makoro. waaw waaw ñun may fi may fi ma li ma doon wax léegi léegi ne comme li maam Cheikh wax gis nga aussi chaîne am na chaîne yu tudd bul xool te teewul nit ñaa koy xool. seen bëdd maa ngi ko a dégg tey fii. <laughs> waaw mais boo demee nga nga recherche ko. mu ko xalaatuma ko xam nga aussi euh, dafay dafay tax aussi loo xam te ni nit ñi. découvrir maanaam comme li nga wax légui légui dañ dem nañ sax ci école yi ñu leen di defal théorie théorie théorie te duñu leen defal pratique aussi te dafay baax koo defal théorie un mois nga defal ko pratique un mois mu xam li mu doon jàng nii li nga koy expliqué nii li nga koy wax ni muy dugg si noppam ah à la fin lan la mu xam aussi da ci da ciy baax mais aussi du ñu def loolu cela veut dire que bu ñu gisee keneen ku leen defal théorie dañuy dem loolu boo waral yenn yàqu yàqu yàqute yu bëri nekk ci dëkk bi te aussi parfois comme li ma la doon expliquer léegi-léegi ne la parfois li ñuy jàng ci dëkk bi ah di ko dégg si dëkk bi parfois dañ comme li nga wax dañ koy cof rek romb ko cela veut kon bu ñu génnee ci mbedd bi daje ku mel ni man pour mu këf leen yóbbu day yomb comme li ma wax léegi bu jabar xëyee ne ment ak jëkkër ne ment ak jabar doom kese ci kii bi euh, ci ci kër gi journée bi bu defee lu dul yoon kan moo koy teg si yoon xam nga du am 88 salaam ah maam Cheikh maa ngi lay ziar jëkkër <laughs> mer bi fa ma ko la. maam si rek. mer ñu fa. ma ne naa tey ci sa ci sa ci sa at xale yi. ndeysaan ndeysaan jërëjëf kontaan naa gis naa la yaa ci dëkk. alhamdulilah. man dara du ma raw. wallaay ndeysaan dëgg la benn émission du ma raw. ndeysaan dëgg la raw waaye tey yaa ngi ci dëkk. ana ma kura jaay. ma kura ay jigéen yi muy mel. dinañ ko dégg incha allah. nee leen seen maam nee leen seen maam nee na. Ah. yow yaa ne ci dëkk. léegi <laughs> ah, man maay man man maay yaay rajo bi maay yaay maay waaye tey moom seen maam nee na maa yéen yow yaa ne ci dëkk. macha allah. <laughs> ma saa ci woon. dina ko dégg incha allah jërëjëf jërëjëf may dem bëgg naa baax. Ah, kontaan naa waay jërëjëf kontaan naa jant gërëm ñel na ko bu baax euh, moom euh, maire Diouf euh, di chéri maam Cheikh Ahmed Tidiane <laughs> Diouf. maire Diouf kay nay woote chaque mercredi rek nay woote nay woote rek tarakaat. <laughs> waaw mhm. comme comme li ma la wax léegi parfois aussi da ngay gis bo demal ci bo kii li ma wax début bi ñi ngay gis ñu ne ci jàng yi di wo di way ci jàng yi ak xas ñoom ñooy nekkaat ci même boîte de nuit di way. fi mais aussi cela veut dire que que ko yow boo que kii nekk ci que di diine gi di way est-ce que kooku tey boo gisee ci safara ci yenn béréb yi muy way est-ce que kon kooku tey tey di ko mën a topp ko roy waay foofu tam problème la comme li nga wax ne boo boy roy da ngay roy ku mat a roy wala nga topp koo xam te mat na topp maanaam li wax ne euh, référence la aussi da ci benn côté dafay am mhm. hmm? moo problème la yoo xam comme li nga ko waxee léegi-léegi secteur boo laal point boo laal am na ñoo xam ne ñi ngi ci biir am na ñoo xam te ñi ngi ci côté bi mm-hmm. ñiy gàmm ak ñiy raas dem bokkul ñu tëxëñ yooyu yëpp ñu yem foofu ah mhm. pour l' instant ñu ñu ñuy jaajëfal ñëpp ah mhm. maam Cheikh débat bi tey dama laa dama laa yërëm tey quoi tey dama laa yërëm <laughs> parce que avant nga ñëw avant avant ngaa ñëw loolu gars yi sorox na defal maam Cheikh daf naak defal maam Cheikh ba yi ma préparé woon yëpp réer ma quoi dama yi ma préparé woon daf maa réer ñi ñi xam nga ñuy jaajëfal ñëpp di baalu àq ñëpp ne xam ne débat bi moo demee noonu moo taxoon euh, mu xaw a tëree ni mu xawee demee noonu mhm. euh, ñun meluñu na gauche ñun ci droite bi ci li maam Cheikh nekk rek lañ nekk quoi <laughs> mooy suñu sëriñ ñu leen di baa baalu ak bu baax di leen jaajëfal de waa groupe résistance ràcc aussi fàttewu ma ne naa ñoom ñëpp ah, ma leen di jaajëfal ñi ngi déglu euh, di remercier ñëpp di leen jox dig daje ba à la prochaine incha allah faatu sa dernier mot ak solution ngay proposer waaw ablaye man de li may wax que sénégalais am na loo xamante war nañ ko tàmm mooy di encourager nit parce que yow da ngay nekk ci njuumte njuumte njuumte ba benn jour nga bëgg a mm-hmm. bu la gisee ñu julli naan ah xanaa tey xanaa tay la ko commencé def nañu encouragé nit ñi encouragé même bu defee tuuti lu ndaw yi ko encouragé parce que da koy jox fit mu gën ko mais bu defee nga ne xanaa tey da nga koy xeeb loolu mu def tam sax mu jaaree fa bàyyi nañu jéem a encouragé nit parents yi nañu taxawaat bu baax ci xale yi yar parce que ëllëg dinañ leen ko laaj te dina métti si ñoom kon nag nañ góor góorgóorlu bu baax a baax di wax rek lépp lu fi dëng rek ñu xam ne que ni ñun ay nit lañ matuñu lépp lu fi nekk yiw yàlla na ko suñu li fi baax yàlla ko yàlla def yiw wasaare ko si àdduna bi yëpp jërëjëf Fatou Ndao Mbaye maam Cheikh nga tàggatoo waaw jërëjëf euh, xam naa débat bi am na solo mm-hmm. euh, yàgg nañu déglu ëttu ndaw ñi tey la yàlla dogal ñu ñëw ànd ak yéen émission bi yàlla na yàlla mottali jërë ngeen jëf yàlla na yàlla barkeel mm-hmm. ñi doon dégg itam yàlla nañu am noppi garmi Mm-hmm. mën a dégg li ñu wax mm-hmm. ñun itam ñun ñu koy wax en âme et conscience ñu jiitu ci li ñuy wax mm-hmm. incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullah di ko jaajafal bu baax uh, moom maam Cheikh Ahmed tiijan Diop di ko jaajëfal uh, Fatou Ndaw Mbaye ak Makoro Diagne ñi nga xamante ni ñoom laa àndaloon si seen émission nga ëttu ndaw ñi tey ñu loon waxtaanee li nga xamante ni moo di uh, jeune ak religion di jaajëfal tàkkandooy bu baax a baax a baax Samba si ñu ngi lay jaajëfal xanaa di fàttali rek mbokk auditeur ak auditrice Safina FM journée de fraternité yi nga xamante ne nag daayira safinatul safinatul saadaati dina ko amal nag eh, jàpp nañ ko fukki fan ak fukki fan ak benn ba fukki fan ak ñaar ci weeru novembre bi ñu dënmal di vendredi samedi dimanche di VSD waaye nag bokkul ak VSD Mokoro Diagne yi ñu tem ba nag eh, islam ak te kon ñu ci woo képp kuy auditeur Safina FM eh, ak foo mën a nekk ci Ndakaar ak ci Sénégal rek ñu ngi lay woo nga ñëw teewee si yooyu ndax dina am solo bu baax a baax a baax ñu leen di jaajëfalaat bu baax di leen jox dig daje àllarba bi di ñëw bu soobee suñu borom si seen beneen numéro jërëjëf Samba si ngeen di topp programme Gaallou Tékhé